صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan ak fu ñu mën a nekk ci àddina ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di anticiper suñu xaniyeen li Ibrahima la xilaaloo parce que ñu ngi ci fan yi ñuy séentoo bés boobu suñ sang bi waxoon wax ju tedd jooju muy Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass bu weeru sang bu tedd bi teroo dafay ndokkeel boppam ndokkeel lislaam ndokkeel jullit ñi ci loolu la waxoon xaniyeen li Ibrahima su fekkee nag dañuy fuglu bés boobu di ko waajal bay la caayal ay wax ay kàddu yu war a jib pour séentu bés boobu yaakaar naa ko ci wax xaniyan wax nga ko ci fi nga ko war a waxee ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziyaare ñu ngi leen di ndokkeel ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziyaare beneen yoon di leen wax ne mbokk mi di waxtaan walla di wax ak yéen ñu koy xool ci image mbaa di ko déglu ci rajo mooy Seydina Aliou ñu gën koo xam ci Cissé Niang ni ko ooyee noonu fii ci pays Medina Baye muy président Ansaarudine groupement départemental bu Kaolack bi bokk ci ay entité yu bëri yoo xam ne dañoo bootu ci service yi xadaratu Ibrahimiya ci ndigalal Seydil Khalifa Cheikh Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass kon nag mbokk yi nga naaw nuyoo bi ñu ngi. déglu rek ñi nga xam ne ñooñu tàllal micro bi lu luñ bëgg a xam ci nga xam ne ñun ak ñoom ñoo ko war a bokk xam ñoo ko war a bokk wax ñoo ko war a bokk ànd xamal ko ñëpp euh, ñu ànd ak ñoom ci loolu kon Euh, présidente kàddu gi loolu laa ci bëggoon a jiital ci nuyoo. Mm-hmm. macha allah président comme ni nga ko waxee wax nga ko léegi Ansaarud-Din groupement bu Kaolack bi bànqaas la ci Ansaarud-Din euh, national comme ni ñu koy waxee boo ko doon présenté euh, taxawaayam lan la. waaw Ansaarud-Din bu mag bi la ñuy wax Ansaarud-Din di Sénégal. Mm-hmm. boo demee ci récépissé bi da ngay gis ne moom fédération la tudd fédération bi nag lan la fédéré. mooy groupement yi ñu amee ñun boo ñëwee ci Kaolack département Kaolack bi mboolem daayira bu ci nekk ci département Kaolack lay bokk demeet boo demee ci beneen région tamit mbooleem daayira bu ci nekk ci département boobu lay bokk département yooyu nag wala départementaux yooyu comme ni ngeen koy waxee yéen ñi jàng nasaraan ñoo lëkkalewoo fonde bureau national maanaam dafa mel ni président yi départemental yooyu ñooy membre yi bureau national kon man may kenn ci ñiy représenté Kaolack ci bureau national bi waaye nag am lu spécial loo xam ne ñun moo ñu mooy suñ cër foofa bi gën a law dafa mel ni su ma buggee gën a yaatal li ma bugg a wax dafa mel ni dañ ne ma lan mooy jamiyatu ansaaru din département rek Kaolack ma ne mooy benn branche bi nga xam ne moo boole Kaolack ci ansaaru diin bi Baye Niass sosoon Baye moo sos tëral tëralin ne dafa bugg fu taalibe nekk ci réew mi mu bokk ci boroom xam-xam yi seen xam-xam màcc ci organiser mbooloo ñoom ñu ne loolu kon dañuy jóge ci entité bu ndaw bi di ful di yokk ba àgg ci bi gën a mag ñu ne kon loolu mooy lan Baye Niass dafa bind taalibe yi leeta ne dama bëgg ngeen tëralaat seen jamiya boobu wala ngeen soppali seen jamiyatu ansaaru boobu tëralee ko nii ma wax bind benn leetar danañ ca ñëw ca kanam leetar boobu nag borom xam-xam yi tëral tëral yi ni jamono bi ñuy tëggaat jamiyatu ansaaru diin ci 2011 wala 2012 ñoom dañ gisoon ne pour départ ci base bi mooy départ ci taalibe bi d'abord comme Baye Niass ne taalibe yi bind naa leen leetar bëgg seen mbir mi ngeen tëralee ko nii comme taalibe yi la waxoon ñu ne taalibe yi moom gën naa yaatu taalibe bi gën naa yaatu daayira bi kon senegaal yëpp ñoo ci bokk wala ñu ne gannaaw taalibe bi la waxoon sax àddina yëpp la wax topp mi yëpp la wax te topp mi àddina yëpp la ñu waaye nag mbay sa wew tànk loo gis mu taxaw tey am na ñu ko sonne woon pour mu taxaw am na fu tàmbale woon te suñ delloo ca lettre boobu bés boobu ñu koy wax ba ñuy bàyyi ba muy joxe misaal wala oustaz Barham jóg bi mu jàngee lettre yi bàyyi bi ba koy firi ba muy joxe misaal pour nit ñi xam li bàyyi doon wax gën a xam li bàyyi bëgg a wax dafa ne ñu mel ni diw ak diw te booba ñoo jiite woon instance bi nekkoon Kaolack buñ ko doon tuddee tey ñu ne ñoo jiite woon département de Kaolack dafa tudd ay tur wax seen responsabilité ci département bi mu ne ñu ci département bu nekk ci Sénégal buñ dajee nag ñi lëkkaloo ci la ñuy créer lu mag loola mu doon wax te lu mag loola ci tërali ni jamono tey mooy fédéré ñi fédéré mouvement yooyu yëpp nekkoon ci suuf ba ci kaw ñu tudd ñooñu ñoo tudd bureau national ñooñu fédération national la leen papier bi di ooyee soo demee ci kayit gi da ngay gis ne ñun ñiy nekk ci département yi liñ jiite du fédération Ansaarud-Din am na sax ñu koy wax léeg nga dégg nit mu fédération Ansaar Dine bu Kaolack ñun duñ fédération. Mm-hmm. ñun groupement lañ ci fédération bi lañ ñu daggee. Mm-hmm. ñun groupement yi ñoo dem composé ji fédération nationale bi moo tax ñun mënuñoo ooyee mm-hmm. fédération nationale groupement départemental lañ ñuy wooyee man ma jiite groupement départemental bu Kaolack bi par passage fi laa jaaree rek nuyu sama sama wóllëre yi ak sama sama sama xaw ma nu ngeen ko waxee koo bokk ak liggéey. sama collaborateur yi. ak sama ñooñu ma bokk ak liggéey bi yëpp muy président groupement départementaux yi Sénégal yëpp fii lay jaaree du ma tudd tur waaye yaakaar naa 45 départements yi ci Sénégal yëpp Ansaarud-Din samp na fa groupement départemental. Mm-hmm. te xam naa président yi tour par tour numéro téléphone. Mm-hmm. par numéro téléphone donc par passage ngi nuyu ñëpp di leen feddali suñ coloré ak suñu engagement ci liggéey bi mm-hmm. loolu su fekkee ne présentation gàttul loolu dafa soxla temps bu gàtt pour wax li ñu résumé mm. mooy groupement départemental bu Kaolack bi lan mooy taxawaayam nag mm. ci ansaaru diin Sénégal bu mag boobu nga xam ne moo lëkkale yépp loolu li takkale groupement yi ci Sénégal yépp moo bokk takkale groupement Kaolack ak bureau national mm. waaye nag comme bàyyi na ne buñ sosee lu mag loola siège bi na nekk fii Kaolack Medina Baye kiy jiite lu mag loola na génnee fii ci pays bi mook secrétaire général bi loolu xanaa moo indi su fekkee bureau national président bi ak secretaire général bi fii la génnee ci xadara bi kon def nañ li bàyyi waxoon waaye traduction moom ku nekk ni nga déggee ngay traduire ni sa xam-xam toll ngay traduire xëy na bu ma développé ba mu jeex ku nekk da nga jàngat ci sa xel traduction bi ni nga ko déggee ak ni nga koy jàppee bureau départemental wala Ansaarud-Din groupement départemental bu Kaolack dafa am lu spécial ci fédération nationale bi benn Baye dafa considérer chaise bi considérer ki koy jiite te génnee ko fii ci Kaolack considérer organisation yi taalibe yi moom mooy xew-xew yi xew ci pays bi du xew-xew yi Baye maanaam même yi mu doon def moom daf ko doon defal taalibe yi jàngale la woon lal darsi di jàngal di jàngale loolu bàyyi moo ko doon def waaye taalibe yi la doon jàngal pour ñu xam-xam kon xew-xew yi xew-xew taalibe yi la lu jiitu nag ansaaru din di taxaw ci forma formation bu mujj bii nii 2012 ak tey xalifa bi moo doon tànt loué weñ loué baas def dépense indi gan ñi delloo leen def ñaan kon léegi loolu sëriñ bee doon def lépp ba pare ñaanal taalibe yi ñu dem biñ ansaaru diin nag te ñim ko jox di ay borom xam-xam yal na yàlla fayal ñu leen ñu ngi ci aljanna tey mooy ku mel ni cheikh Mouhamadul Mamoun cheikh ibrahim Niass ak ku mel ni oustaz Ibrahima Mahmoud Diop ci njiital cheikh Ahmad Tidiane al Khalifa cheikh Ibrahima Niass tax boobu cheikh Ahmad daam mu ngi dund yore xilaafa gi mais liggéey bi cheikh Ahmad cheikh Ahmad Tidiane al Khalifa la ko wakkiloon mu yore doxalin bi ñaar ñooñu muy oustaz Barham. ak Cheikh Mouhamadul Mamoun Ibrahim ñu confié leen tëralin wi ñu lëkkaloo ci ak taalibe Baay intellectuel yi nga xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci loolu bañ koy tëral it proposition yi mooy su demee ba tëddee ni mu war a tëddee xalifa bi proposé woon na ñen ñoo koy jiite ñoo ñi ko waroon a jiite la Baay waxoon la doon wéyal secretaire général ba ak ak euh, président ba xalifa bi proposé woon na ñaar ñi koy doon li ci des mooy composition groupement yi nga xam ne départemental yi nga xam ne ñoom la kooku di kii di ñooñu di jiite. léegi mu ngi mel ni kon président nationale boobu coordinateur la ndax liggéey yi départemental yi ñoo koy def am fuñ ko centraliser ji ca kaw muy bureau national ñu ne foofu dañoo war a wut ko ko jiite loolu mooy choix wu xalifa bi mooy tànn. kiy jiite loolu ak secretaire général bi buur mu dëppoog li ñu waxoon bàyyi waxoon ne kay jiite lu mag loolu ak secrétaire bi na génnee fii mu teg ca dara dana doon ñoo xam ne duñ nekk ci benn service lii rek mooy doon seen liggéey ba pare chaise bi nekk fii ci Médina su defee kon su fekkee dañoo former groupement départemental yi senegal yëpp def ko Kaolack def ko kon da gis ne Kaolack dana nekk groupement départemental mais dana am chance tamit président lu mag loolu ak secretaire général ba suy génn membre yi Kaolack lay doon ndax tey président yooyu jaar fii ak secretaire général yooyu ci groupement Kaolack lañu am carte membre yi Ansaarud-Din ba ci xalif général bi carte membre am ci groupement Kaolack la bokk donc da gis ne loolu mooy li spécial li yàlla may Kaolack ci mbir mi sax mooy mooy wane particularité euh, Kaolack ak liñ ci jublu ci mm. ci laaj bi mm-hmm. mu mel ni ki itam loolu sans transition ñu yóbbu ci Kaolack kon taxawaayam ak organisation gàmmu foofu daf fay feeñaat jërëjëf mm-hmm. foofu laa doon bëgg a daaneele suma wax loolu moo tax ñu ne kon bi ansaaru din bi mu tëralaat réglement intérieur bi ak statut bi dafay définir euh, statut spécial groupement de Kaolack mm-hmm. comme chaise bi bàyyee ko joxoñ wax lim fi bëggu kon chaise bi Sénégal bi biñ ko xaajalee ñeenti zone parce que dañ koo dagg ndeyjoor càmmooy xar fu penku xanaa kaw rek a waroon a des ak suuf mais comme du am kaw ak suuf kaw ak suuf la ñuy lëkkale mu nekk euh, cinquième ci bi mm-hmm. branche bi ñu ne kon biñ séddalee Sénégal cinq quatre zones dañ ci yokk zone chaise bi su ko defee daanaka mooy doon ndeyjoor ak càmmooy penkook xarfu ak kaw ak suuf loolu yàlla jagleel tamit groupement Kaolack mooy doon zone chaise bi léegi zone 16 bi ñu ne dañ koy confier président groupement départemental bu Kaolack xanaa leneen lu spécial feeñ na léegi nag zone 16 bi biñ définir luy rôlam dañ gis ne gannaaw xew-xew yëpp fi lay xewee kon kiy jiitee zone 16 bi mooy amee organisation yi te fekk amoon nañ benn comité d'organisation bu tuddoon comme bàyyi ca njëkk ca tàmbali ca jiitu ñuy sosaat sos bu bees bi ansaaru diin mais bi ñu tëralaat tëralaat bu bees bi ñu changé le nom jox tour bi gën a yaatu bale comité d'organisation Medina bàyyi rek la woon mm. bii nag COMAF la tudd xam nga gën a yaatu mm. léegi nag dafa dëppoo ak ansaaru diin ni mu tëralee ñu ne kon nu ñuy def ndax kon dañuy déstabiliser COMAF chaise bi ak ki koy coordination rek di organiser ou dañ fiy bàyyi comité d' organisation bi ñu ne réalité la comité d' organisation bi réalité la fii léegi kon comité d' organisation bi daf di daf fii des nekk commité d' organisation matériel am na lu jiitu loolu mooy bi ñu tëralaatee tëralin bees bi président bi fi njëkk a nekk président ak secretaire secrétaire bi dañoo dajee ne waaw lii ñuy wax ne mooy xewee Medina yëpp te taalibe yi ko moom taalibe yi luñ ci def biñ ko càmbaree ñu gis ne taalibe yi amuñ ci rôle defuñ ci dara dañuy ñëw dal ci kër yi reer ba suur dem ci gàmmu gi sëriñ bi génn gàmmu wax xaw xam-xam guddi ba bés su fajaree ñu jàng kaamil bi mu jàng xatmu bi ñaanal taalibee yi yewi leen ñu dellu ba déwénati ñu xool loolu ne lii lu ci taalibe yi def kenn ku ne càmbar sa bopp gis ne defoo ci dara. Mm. ñu ne comme Ansaar Dine nag organiser wu na sous forme de comité d' organisation wala sous forme de dajale taalibe yi mm. léegi nag Ansaar Dine jël dara ci loolu. Mm-hmm. Ansaar Dine engage na nag organisation yi pays boobu li ci aju ci def man-man doole alal na ko taalibe yi jël waaye nañ ko organiser borom xam-xam yi dem càmbar koo gis ne association règle normal mm. dafay am quatre membre pour nekk ci membre de droit da ngay adhéré bokk am carte membre di teew di teg mhm. gannaaw noonu la association yi doxee léegi teew di teg boobu loolu muy dajale fan lañ ko war a jëmee ndax dañ koy dajale ba mu bëri rek jox sëriñ bi mhm. wala dañ koy dajale ñu ne kon taalibe yi nañ jël engagement organisation yi gàmmu gàmmuwaat mhm. charge organisation yi gàmmu gàmmuwaat gàmmu tey ba ci financé ko léegi nuñ koy defee ndax dañuy toog ba gàmmu rek ñeneen nit ñi ñëw leen teg wala ba gàmmu Tayba wala ba gàmmu mhm. borom xam-xam yi dem saytu loolu gis ne suñu joxee carte membre taalibe bàyyi ñu si ci Sénégal nga xam ne mhm. lu néew néew néew néew mën nañ cinq millions dix millions ci xayma bu nattale bu yàqu mhm. ku nekk joxe mille francs xoolal trois millions personnes yu joxe ku nekk mille francs loolu ñaata la xaalis bu am solo la at mu jot ñu joxe ko daf ñuy permettre te gàmmu du yóbbulu mat cent millions suñ defee gàmmu li fi des mu jël projet yi Medina yi yokk liggéey ci jumaa ji liggéey ci bayal bi liggéey ci école arabe bi liggéey ci jumaa yi dimbale ku néew doole xeex ndóol mi dimbalante ak néew doole faj ku feebar ñu ne kon léegi dañuy defar carte membre boo xam ne képp kuy taalibe Baye Niass waxaguma ku bokk ansaaru diine képp kuy taalibe Baye Niass daf koy jënd mille francs at at mu jot mu cotiser ko 1000 francs loolu ca départ ba la hmm. muy xanaa muy taalibe bu nekk at mu jot mu jox bàyyi mille hmm. ñu tàmbali ko ci at mu njëkk mi yaakaaroon nañ ne danañ jaay cent mille taalibe bàyyi ku nekk mille francs su ko defee dangay gis ne adhésion bi de base de départ am na hmm. at mu jot ñu cotiser ko loolu 1000 francs première année bi ñu def gàmmu def ko ci budget ansaaru diin loo xam ne mën na ñetti yoon li taalibe yi joxe ñu gis ne kon taalibe yi li ñuy joxe mënta def liñ bëgg mu def ko te comme engagé nañ pour def ko ñu ne ci lañ wax nag ne kon léegi carte membre bi taalibe bu ne def koy jënd deux mille cinq cent benn yoon ci dund waaye at mu jot nga nattal ko deux mille francs su ko defee mu ngi mel ni kon mille francs la taalibe bi di joxe ba léegi at mu jot 2000 francs yooyu kar ñu ngi koy xeeb waaye 2000 francs yooyu ci la ñuy def gàmmu yi ak gàmmuwaat ci la ñuy def gàmmu Taïba yi léegi nag mu des organisation bi ni muy doxee association ku ci bokk am na lu la ci war ñun ci suñ parti groupement yi am nañ ay organisation comme fii ngeen ñu fekk muy chaise di bureau mu am courant am ndox am nangam am ñu fiy xëy kenn gàdduwul dara ci ñoom. lu mu bon bon war nañoo teg organisation boo xam ne mooy permettre ñi fi nekk mën a doxal mbir mi ñu ne kon dañuy ubbi benn organi façon ci suñ biir organisation interne ku fi bokk da ngay affilié maanaam du affilié par individuel mais daayira bi mooy adhéré ci groupement bi groupement bi affilié ci bureau nationale di euh, recouvrer cotisation annuelle bi donc daayira bi bu bokk fii mm. war na di cotiser mensualité par mois malheureusement dem nañ ba gis ne jafe na duñ ko duñ ko mënatuñ ko mënuñ koo dajale. Mm. li ñuy góorgóorlu mooy at bu jot bu gàmmu jotee mm. ñu fexe ñi joxe deux mille francs yi cotisation yi mm. ñu gën a bëri duñ ko joxe mën naa wax ne trente pour cent ñooy joxe cotisation annuelle ci cent pour cent mm-hmm. léegi nag li ci des diñ koy combler mooy suñ demee kàmmu tay ba ñu laajaat ko ñu desee woon joxe ñenn joxe loolu nag mooy li nga xam ne loolu lañ ko def maanaam cotisation yi daal mm. ku ko mën a joxe jëmut ci poos yi kenn organisation bi moo koy gérer su pay bi xewlee mu def ko ci su ngeen gisee publication biñ def bi gàmmu daaw passé ñiy wax ay cinquante deux millions ci dajale téeméer ak ñaar téeméer vraiment kon da ngeen xam ne taalib baay yu bëri joxe woon nañ ci mm, waaye nag ñu bëri ba léegi comprendre guñ joxe bi des na mm-hmm. moo tax foofu daal mm-hmm. bëgg nañ buñ ca accès. Mm-hmm. ñu def appel gën koo leeral taalibe yi gën cee am taxawaay. d'accord point boobu ñu nekk ñu taxaw fa rek président sànq yaa ngi koy wax muy par rapport ak ansaaru diin ak ren. gàmmu daan am mais ren aussi beneen particularité feeñaat par rapport ak tente bi ñu war a daloo lëkkaloo bi liggéey bi loolu aussi laaj na précision. waaw sant yàlla beneen yoon lëkk euh, fii moom par passage dañuy E ndokkeel suñ mbokk Baye sis parce que mooy initiateur chantier bi mm. e, man xaw ma données yi commencement dama voyage yi ñëw rek mm-hmm. fekk ñu publier lettre ne xalifa bi jox na Baye Ciss chantier pour liggéey tànt bi te fekk luñ doon gént la dañ foogoon ne du lu mën a am te lu war a am la woon mm. ñun ñëpp xamoon nañ lu war a am la woon waaye gént googu dama nangoo ci làmmiñu xalifa bi Cheikh Mahamadou Mahi xaadimul umma yàlla na fi yàgg te mu ne gént la woon Baye Ciss moo ko réalisé kon suñ àggee ci wax ci loolu avant dañuy ndokkeel Baye Ciss félicité ko aussi ñaanal ko ndax taalibe bu góor góoru ba def ci dara rek moom may na la opportunité pour nga def ci loolu dara euh, relation bu rafet bu set moo nekk suñ digganteeg moom parce que bi mu jotee liggéey bi it jàpp na ne mu ngi koy liggéey pay bi la koy liggéeyal waaye ansaaru diin lay dimbale te lii li ciy dalil li ciy preuve mooy biñ àggee ga daaw ci gàmmu te chantier bi parewut mu gis ne heure bii comité d'organisation bi dañoo war a jot ci tribune bi ndax ñooy waajal gàmmu daf ma téléphoné na ma président dañ la soxla dañ bëgg a toog ak yow foo nekk ma ne maa ngi sama bureau mu ne maa ngi ñëw mu ànd ak stafam ñëw toog fii nuyu wanteeg ñun ñu sargalante mu ne dañuy waaj a arrêté liggéey bi pour jébbal leen tente place turbine bi ngeen organiser gàmmu bu ngeen paree ñu continuer àggali liggéey bi comme chantier la dama bëgg ba lañ koo libéré liggéeyaat wala def ci dara di leen war yéen ñun ñu jébbal leen ngeen ñëw xool su ngeen amee lu urgent lu ci mënta ñàkk te ñun ñu war koo def ngeen suggéré ñu ñu defar ko balaa ñu leen a jox tirbin bi ma ne ko waaw tribune bi nag dañ am ñaari ñaari personne yoo xam ne pour ñu wax ci il faut ñoom ñu teew mm. mooy commission d'organisation matériel bi président bi ak ki amee protocole mm-hmm. président commission protocole ànd ak ñoom man seen responsable la mm. ma oo leen ñu ñëw ñu ànd ak bàyyi si ñu dem ci tànt bi mm. ñu visiter liggéey bi mu présenter wax fi mu toll ak lim ci bëgg a def feeg ba muy pare président commission d'organisation bi matériel bi xool piste bi am yu mu ko joxoñ na ko yii ak yii ak yii mënu fee ñàkk ci gàmmu gi li ci chantier bi war a def chantier bi def ko li ci comité d'organisation bi war a def ñu jébbal ko COMAF mm. lim li ci laaj finance Ansaarud-Din finance ko macha allah mu jébbal ñu tribune bi mm-hmm. ñu organiser ci gàmmu daaw mu rafet lool ñi ñëpp gis ne liñ doon gént mën naa nekk tey nag ren li ci ne mooy mu pare ba mu war koo jébbale ñu jàppal ko eh, ñaari bés wala benn bés avant jour gàmm gi pour war ko inaugurer donc da gis ne ren du ñu ko mën a jébbal avant bés boobu donc ñun ren dañuy jël en compte inauguration bi boole ko ci organisation gàmm gi nga xam ne buy inauguré ci biir organisation gàmm gi ci lay inauguré nga xam ne moom bu paree ba disparaître moo équipe rek comité d'organisation bi day jël relève bi rek continuer organiser gàmmu donc loolu moo nekk suñu diggante moom actuellement nii may wax ak yow président commission d'organisation bi matériel bi mu ngi ci biir tànt bi ak commission bi amee woon chantier bi ñu ngay xool matériel yi ñëw na conteneur bi agsi na ñu ngi wàcce bagage yi def installation yi ñu ngi xoolaale en même temps li liñ ci war a def balaa ñu ñu koy jébbal yaakaar naa ne buñ ñu koy jox nee na fekk mu impec mel ni mu war a mel foofu nag lañuy ñuy appel bi ñu doon wax pour Ansaarud-Din ñu def ko pour taalibe yi xam ne ñu uy siwaat bi mais ci ñaari doxin bi yoon dañuy ñëwal gàmm mais gàmm gi dafa am xew-xew yu ci am yoo xam ne taalibe bu amul ngànt war na ko fekkee si ñu ñaan teg yi mi laaj ci uy ko yëpp taalibe yi yàlla nañu yàlla may ñu mën a dégg mën a topp mais ñu ñu am chance yi mën koo uy ba pare te uy si ko ci anam biñ ko war a uy léegi nag loolu yaakaar naa ne mooy mooy question bi point bu mujj bi appel bi lan lay ñi rek taxawaayu Ansaaruddin li ci des mooy waxoon nga ma ne mm. laajoon mos nga ma laaj mm. nga ne ma lettre boobu bàyyi wax ci Ansaaruddin nu mu tëddee mm-hmm. man toujours damay wax ne dafa am ay point ci biir lettre bi yoo xam ne dañ ko waroon a def ci classe di ko jàngal taalibe Baay mm-hmm. ndax Oustaz Barham dafa jàng lettre bi ci mm-hmm. arab ñi mu doon wax ak ca jamono boobu nga xam ne ñoo jiite taalibe yi ñooñu dégg nañ arab mu jàng ko ci arab ba mu jeex mu firi ko ci olof mais commentaire ko léegi ñun liñ ci déggee mooy commentaire bi la taalibe yi soxla commentaire bi man toujours dama ciy jël ñetti tomb mm. bu njëkk bi mooy taalibe yëpp nañ ci bokk te insigne bi ñuy takk mooy badji bi nañ ci bind nax nu ansaarullaahi mooy kon carte membre bi nax nu ansaarullaahi moo ci nekk nax nu ansaarullaahi lu muy signifié mooy jamiye bi bàyyi ni mu ko tuddee jamiyatu ansaaru diin Oustaz Ba mu taxaw ci ci ci commentaire bu njëkk bi mu ne loolu la yónnent yàlla Isaa waxoon nitam ña man ansaar ya ilallaay ku may dimbalee ñu jëm ci yàlla kuy ànd ak man ñu dimbale yàlla mu ne xawaar yi ni ne ko nax nu ansaarullaay ñun ñooy dimbale yàlla mu ne bàyyi su tuddee jamiye bi loolu mu ne te yonent yàlla Isaa ba muy wax loolu moo amee woon mbir mi foofu laa bëggoon a ñëw loolu tax ma nettali nettali bi mm. yonent yàlla Isaa ba muy wax loolu moo amee woon mbir mi xanaa ki koy wax tey kon moo amee mbir mi kon ñun ñu jàppee ci ne kon ki koy wax tey moo amee mbir mi ki amee mbir mi nag bu ñuy def ci mbir mi dañ koy déglu kooku mu ne dafa bëgg taalibe yépp bokk ci fuñ mën a ne mu ne dëkk même buy ñetti nit nañ bokk ci nañ tëral comme nii mu waxee nañ am ñett bu dee ñett nit la nañ lëkkaloo ba am ñu leen di fekk si na am président am secrétaire boo xam ne la ñuy waxtaanee ñoom ñoom ñaar ñooña wala ñoom ñett ñooñu ko koy bind pour su leen keneen fekk see fekk tëral nañ dara am kuy denc xaalis pour ñoom ñett buñ waroon ci ku ne joxe dara kenn denc ko mu ne dëkk lum ndaw na même bu dee dëkku ñetti nit xanaa kon mu wóor ñu ne waxuma dëkku ñett nit mais fi mu ne kër ñetti nit amut borom kër gu samp këram ñetti nit ne fa mooy li gën a néew xanaa kon fi ne ko yóbboo ci li gën a ndaw mooy kon kër gu ne dafa war a affilier donc mu ne dafa bugg bu ñu xamee ñaata ñoo adhéré ci loolu xam ñaata ñooy taalibe mi xanaa lu am leneen lu am importance ñëw na ci commentaire bi duut compter pour xam nit ñi bàyyi politique wut ba bëgg a xam nombre bi bàyyi xam na mën naa tasaruf ci xol yi xam nañ nit ñi ñan lañ waaye li muy wax du loolu. dafa bëgg ñu nekk mbooloo mu takk mu am solo moo xam ne suñ buggee def dara man koo def mu ne bëgg na suñ xamee ñaataa ci bokk xam ñaata ñooy taalibe yi kon képp ku nanguwut ñu ne la yow doo taalibe Baye fekk taalibe nga war ngaa fexe nag ba am carte membre fii nag laay occasionné ne kenn ku nekk ci ñun na làmbaat boppam seet ndax am na carte ko am ndax li war ci carte boobu def nga ko parce que su fekkee mu ne insigne ba ñuy takk ndax nu ansaar laa na ci nekk te nahnu ansaar laa dimbale yàlla boobu mooy dajale li ñu am di ko def ci yàlla nga bokk ci bindu ci mu ne te wax ko te defoo ko lu garaaw la loolu saa baraam wax dellu leen ci wax ji mu ne buñ ko waxee dañ ko def buñ ko waxee te def ko mooy suñu adhéré ba am carte lan carte bi laaj ci def ñi di ko def léegi taalibe bi bokk am carte te ne du teg du teew bu ñu ootee est-ce que suñuy lim dinañ ko limaale déedéet kon nag man maa ngi dénk sama bopp di dénk samay mbokk taalibe ci yàlla yi nga xam ne bëgg naa li ma am ñoom ñi am ko waaye bëgg naa lu baax lu ñu am ñoom man ma seddu ci kon ñun nañ lëkkaloo ci ngay ma adhéré ci ansaaru diin te ci ansaaru diin mooy kenn ku ne fi nga nekk fi mu bokk rek nga bokk fa ñi dëkk ci région Kaolack affilié ci groupement Kaolack ñi nekk Fatick affilié foofu ñi bokk ñooro affilié foofu kafrin Koungheul Diourbel Malem Odar Mbirkilaan loolu mooy pôle de Kaolack pôle de Kaolack boobu nga xam ne organisé nañu lëkkaloo seen dix groupement yooyu def benn kii yàlla dogal na man la yàlla nattoo ñu ne ma kon jiiteel pôle de Kaolack boobu kon occasion la pour ma wax ne pôle de Kaolack appel bii ñëpp la ñuy oo Sénégal yëpp waaye da ngeen ciy jiitu na ngeen ci gën a doog wóor léegi nag Sénégal yëpp nag nii ma wax lañ tëralee bàyyi ñu bindoon lettre bi ne kenn ku nekk ci ñun na ci adhéré na fexe turam nekk ci nee na nañ uyoo ne nax nu ansaarullahi ñun ñooy dimbale yàlla ñooy dimbale lislaam dimbale topp mi loolu na Oustaz Bara mu ne wax ko te defoo ko lu doy waar la nañ lu ba nekk ci ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi def appel di wax taalibe fu mën a ne ci àddina fi mu nekk am na réseau boo mën a bokk bokk ci ansaaru diin ñiy wax naan ansaaru din bàyyi tëralu koog leneen la tëral loolu moom loolu ñun engagé wut ñu ñun daal yàlla dimbalee nañu waxi bàyyi réerut mbindam bàyyi réerut lettre baa ngi nii ma tiim moo ko bind signé ko ojo baa ngi nii ci sama téléphone mu ne euh, Serigne mbay bind naa leen lettre na ko baraam jàng baraam jàng ñu dégg keneen ku sos leneen baax na waaye ñun daal ñu ngi ci li Serigne bi dénkaane woon na nañ ci nekk ba leneen xew te gëwuma leneen xew lu war a soppi waxi sëriñ bi kon nag taalibe yi oote baa ngi noonu weeru gàmmu teeru na suñ weeru Serigne taxaw na ñoo jëloon engagement ne danañ ko ci liggéeyal buy ndokkeel ndokkeel ñi kon nag na ngeen góorlu kenn ku nekk contribution yi mu ci daan def ak fu mu ko daan mën a jaar dugal ko mu ñëw na ko fa jaar dugal ko képp koo xam ne bokkoo ci benn entité boo xam ne bu adhéré la te bëgg nga cee contribuer mën nga oo commission finance ak ak ak trésorier général bi bu groupement départemental bu Kaolack ci numéro yi may wax 531 07 07 77 531 07 07 loolu mooy trésorier bi beneen bi mooy commission finance bi nga xam ne ñoom ñooy saytu plan bi ñuy def pour taalibe yi seen dajale bi agsi dem fi mu war a dem kooku numéro am 77 359 69 74 su ngeen leen ooyee ñoom danañ leen orienté li ngeen ci joxe dem fi mu war a dem. su ëllëgee na ngeen ñu xisaab ñun laaj ñu li ngeen joxe fu ngeen ko def danañ taxaw tontu ko ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm tamit vraiment suñu euh, journalistes yi wala suñ média bi ci suñ kanam nga xam ne ñoo ñëw fekk si fii ci bureau groupement départemental bi laaj-laaj yi ñu tontu ko euh, ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waaye ñu ngi ci jaaree di oo képp kuy liggéey ci média te mën a servir Medina Baye Niass ci xew-xew bii nga xam ne suñ xew-xewi sëriñ la te moo ci doon oo ñëpp moo doon wax ñëpp nañ ci liggéey ñu ngi wax ñëpp nañ ci liggéey te ñu sellal liggéey bi yàlla na yàlla defal ñu tawfiq defal ñu taysiir àggalil ñu ci jàmm ñu bokk ci xaaj bi koy defaat ay déwén ci kanam te ñu bokk ci ñu ciy dajee ngërëmal sëriñ bi nga dajee ci ngërëmal Cheikh Ahmada Tidiane te ku dajee ngërëmam nga dajee ngërëmal yonent bi moom ñuy màggal guddeem ku dajee ngërëmam da nga dajee ngërëmal yàlla te loolu moo ñuy may texe àddina may ñu ko ëllëg ci àlaxira wa ma zalika ala llahi bi azizin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi santaat yàlla euh, beneen yoon comme ni ko président waxee rek je pense que ne point yu ñu sumboon ne moom la ñu bëggoon a àddu yëpp laal nañu ko muy par rapport ak présenté Ansaroudine groupement bu Kaolack bi liy taxawaayam dikk nañu également ci particularité bi nga xamee ne fédération euh, groupement bi am na ko jëm ci wàllu organiser gàmmu bu ñu nee organiser nag foofu dañuy insister ci financer. gàmmu donc mu am ci taxawaay gu mucc ayib mais également président ñëw na fàttaliwaat mbokku taalibe yi nag lu am solo muy itam li nga xamante ne suñu sang ba moom lañu bàyyee woon muy lettre boobu nga xamante ne moom la bàyyi bindoon jagleel ko taalibe yi jëm kon ci ansaaru din ak niñ ci war a nosewoo ñu ngi owaat ñëpp encore une fois di sant di gërëm di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. صلاة الله ثم السلام فطرها متد عاد